fédération sénégalaise bu handball nee nañu seen centre entraînement bi nekk fële ca te ñu def ko pour jigéen ñi ay samba booy ñoo ko cambriolé samba yi nag biñ fa duggee yóbbu nañ ñaari télévision ak ñaari ordinateur ci rappel nag centre boobu noonu dañ ko tëjoon ndax feebar bi nekk ci réew mi. fédération sénégalaise bu handball nag déposé nañ benn plainte ca police ba ba police ñëw nañ ba xool mbir mi ni mu demee tijji nañ ci ab enquête ñuy xaar wànnenti mu jékki gëtam ki ñu xamal euh, xibaar bi nag di Sambou Biagui di chargé communication fédération sénégalaise bu handball